man bokk naa may mun a ci ñi gën a xeex ci parti bi pour Macky Sall nekk te nag Assane nañu waxante dëgg itam na l'histoire la en en 2007 Ablaye Wade été la mu def ko Ablaye Wade ñëpp xam nañ man respect considération bu mu am ci moom ci formation bu mu dugal ci man te kenn musul dégg man de yëkkati kàddu ju ñaaw teg ko ci moom loolu ce serait ma renier et je ne le ferai jamais mais Ablaye Wade dafa toog Bakar Dia wër ko ak Macky Sall mu ne j'ai verrouillé la constitution j'ai la constitution je ne me représenterai pas en 2012 mais en 2012 il s'est présenté comme vous l'avez dit le peuple souverain a sanctionné mais le peuple souverain avant le peuple souverain un conseil constitutionnel aussi a tranché ce débat juridique a existé en 2012 faut pas il faut pas aussi condamner sur l'histoire ce débat juridique a existé souvenons-nous on était au comité directeur du PDS de cette position de Idrissa avec le professeur Carcasson cette lettre qu'il a lue devant le président il faut quand même qu'on reconnaisse le mérite d'un homme ñun ñëpp muy man Mamadou Gueye wax na sànq sa déception Cheikh peut Cheikh moom yàgg na ci politique moom xaw na fent affaire yi. mais aussi je faisais partie de ceux qui sont battus. da nga am déception mais non tu man un homme politique je suis un un véritable produit du libéralisme damay jàpp ni man maa jàpp Macky Sall ne ko yaay suma leader. tous les jours je me battu et devant lui en disant que juridiquement nous pouvons te présenter parce que c'est Macky Sall qui a dit je ne vais pas me présenter c'est vrai mais waxu Macky du Bible du Coran du Constitution ñun aussi nous sommes dans un parti nous sommes dans une coalition ce parti et cette coalition a le droit de dire kii mooy suma candidat au nom de quoi dans un pays di nit ñoo wax ñu yéen a war def lii ñun ñoo def lii ñun ñooy juge yooyu ay acteurs yooyu ay juge sa waay nañu nangoonte ñun ñoo def euh, on était tous au dialogue cooy ba sama waa ji on au dialogue ñun ñëpp ñoo ne il faut qu'on fasse une déclaration Cheikh Sarr vous étiez notre tête de tête de fil avec euh, avec Benoît ñun ñëpp ñu ne déclaration que tous les hommes politiques nañ astulu à respecter les institutions à respecter les institutions mooy lan mooy candidat mu nekk bu ko neexee mu déposer su ko déposer conseil constitutionnel en toute souveraineté ne diw mooy candidat ou du nekk candidat xam nga man li wax toujours M23 moi j'ai du respect pour M23 mais en 2011 2012 2011 là le M23 son combat pour moi le M23 le combat qu'il a réussi c'est sur les 25 pour cent mais M23 dafa ne woon non à la candidature de Wade Wade a été candidat M23 le soutien bi ñu ëppoon am c'est sur Moustapha Niass et sur Ousmane Tanor Dieng le candidat que est, qui est passé n'est ni celui du n'est ni Ousmane Tanor Dieng c'est un produit du wadisme produit du libéralisme moo ñëw gagné le peuple souverain a montré qui n'est ni avec les uns ni avec les autres et il a choisi démocratiquement Macky Sall nous a aussi toujours dit oui je suis en de d'écouter tout le monde je prendrai ma décision au moment opportun et je vais interroger nos textes je vais interroger mon histoire mais je vais aussi interroger ma conscience donc wax ni way il n'a aucun mérite c'est le peuple sénégalais qui est dans l'histoire le peuple sénégalais a été toujours dans l'histoire mais foofa na ku nekk ak bësam kon lu jaroon fii xeex bu fekkee ni tey du lii du dara lu jarul xeex du jarul xuloo lu ma dul d'accord ak yéen nag waaye ku bëgg a bokk nag bokk ci élection loolu ban élection la am cooy ba ban élection la am ñu ne ku bëgg a bokk bokk élection rek na bokk ku bëgg a bokk na bokk amul fenn ku bëgg a bokk respecter sart yi moo war a bokk te foofu nag nañu rendre hommage à notre démocratie après ce que Senghor a fait et l'a rappelé après ce que Diouf a fait Diouf Senghor a créé mais les fondements ont été instaurés par Abdou Diouf même si on n'était pas d'accord Wade a construit mais aujourd'hui Macky Sall a fait traverser une autre étape cette étape là reconnaissons qu'aujourd'hui man mi doon partisan loolu mais yokkoon naa ci tous les jours président Macky Sall lépp lu mënta décider je serai avec cette décision parce que nit rek boo nekkee ci parti politique il y de parti il y a aussi un leadership booy nangu te ñoo nangu leadership bu président Macky Sall donc aujourd'hui xam nga lu jeex nag may mën a ci réew mi mooy ñi nga xam ne seen programme yëpp troisième mandat la woon nañ uti programme waaw déglu nañ nañ nañ nañ uti nañ uti programme parce que fu mu nekk nii mbir mi d'abord na nga ñëw nga fas nga nga respecte yoon wi yoon wi réew mi nga respecté ko ba pare deuxièmement nga am programme bu nga xam ne moom ngay jox sénégalais yi et sama waa ji Thioye Ba tu es un pur socialiste Abdou Diouf a organisé des élections qu'il perdu c'est le produit de ce système électoral bu nekk fii Abdoulaye Wade a organisé des élections qu'il a perdu kon fii mënatuñu wax kan mooy organiser élection ak naka la ñuy organiser élection surtout selon loolu li PDS am tey ci député à l'Assemblée nationale nga foog ne su doon sama sago rek dina ko am li Pastef am député à l'Assemblée nationale taxaw am député à l'Assemblée nationale sama sago rek dina ko am mais dépendrul suma sago c'est le peuple sénégalais souverain qui a élu ses députés ce système là donc kan moo ko mën a remettre en cause aujourd'hui ce débat là aussi nous l'avons eu au dialogue politique dialogue politique il y a eu un débat profond où le PDS est venu avec ses positions où le Taxawu est venu avec ses positions où le Rewmi est venu avec ses positions où nous avons eu nos positions et nous sommes arrivés à un équilibre que chacun d'entre nous respecte les les institutions de la République que chacun d'entre nous respecte toute décision que les institutions prendront et je suis heureux aujourd'hui moi de faire partie foofu laay ah, jeexale mais may ma rek ma àggali yow tamit soxna si xam nga yow lu yàq sa émission mooy loolu parfois doo bàyyi nit ñi ñu àggali ah, waaw gis nga de alors dama bëgg ni tey Sénégal président doxaat na beneen anam ci Sénégal tey Sénégal fépp moom moom la ñuy wax waxtaane ci lu rafet ginnaaw lu fi gisee lu ñaaw lu jëm ci premier juin gis ay université ñu taal ko te ba tey am na ñu nga xam ne ils ne se sont jamais prononcés pour condamner dugg yàq ko ba les examens yooyu jafe-jafe nag image boobu ñu tasaare woon ci àddina bi tey président Macky Sall joxaat na beneen image bu nga xam ni dana restaurer l'image du Sénégal et c'est ça qui fait notre fierté